Baba Ndiaye ñu ngi nuyu. maa ngi leen di baax monsieur Dramé. yow yaay président conseil de surveillance agence nationale de construction bâtiment ak édifice public responsable benn Bokk Yaakaar nga itam yaay vice président comité électoral bu nga xam ni mooy ca diwaanu Kaolack bi nga xam ni ma Pape bi tey moo daal di jiite comité bi ni mel li nga xam ni moo jëm ci élection yi reporté nañ ko coow li bari na. kan moo initié li nga xam ni moo jëm ci rapportu élection bi ni mel. yaakaar naa ne leer na si bopp Sénégalais yi. Euh, que nit ñi ñi dal ak tey euh, xam ne initiative jigéwul fenn lu le conseil constitutionnel liggéey na ba processus bi jeex ba ñu ñëpp ñu dem fa ñu dëkk defar ay comité électoral pour taxaw dem élection euh, demander suffrage bi xam ni gën Sénégal ñoo ko te ñoom rek ñoo am solo muy le peuple sénégalais souverain moom may fal ku ko neex Euh, du si coow lu bëri du si menace du si wax bëri mooy tax nit fal la Sénégal nag réew bu màgg la réew bu yàgg am démocratie la euh, te boo ko seetloo crise yàgg na fi am waaye ay nit yu mag ñoo fi nekk ay nit yu bëgg réew moo fi nekk crise yëpp bu amee dañ koy dépassé ma joxoon exemple rek que de amoon na crise Mamadou Dia crise boobu gën la ko dépassé tey le président de la Samson Lamine Gueye pourtant adversaire u Senghor la woon en 1948 bu Senghor demee suppléance SFIO euh, pour dem au palais Bourbon teewul moom moo mujj bi gendarme yi dagalee wër assemblée ak policiers yi mu woote këram si premier étage a député yi voté fa def délibération mu dox tànkam dem palais de la République jox ko Senghor mu ne woon une révision conseil boo xam ni gën doon jël pouvoir yi moom la président conseiller woon jox ko ki nga xam ni mooy président Senghor daanaka mën nañu wax ne. régime présidentiel fa la jógee ci Sénégal di renforcer wu mooy président de la République am ay pouvoir yoo xam ne ni gën dafay nekk pouvoir yu am solo am na yenn crise yu ñu am bi ñu xam ni gën dem na ci quatre courants yi dem ci multi multipartisme intégral bi nga xam ni ab Diouf moo ko instauré lu wax Sénégal ku mu neex mën nga créer sa parti nga bokk si làmb ji bu la Sénégal yi woloo ñu jiite la loolu ci la ñu liggéey que crise 88 am na réew mi jaxasoon lool crise 89 tege ci Mauritanie bi mais bi ñëwee 1991 ak président Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ñu juboo si waxtaan ne def def leen code électoral consensuel opposition bi ak parti politique def ko jox Abdou Diouf sans suivi virgule noonu la ko yóbboo assemblée nationale loolu permettre nañu dem si élection yu leer en 1993 malgré crise 93 maître Babacar Seye yàlla jël ko yalla na yàlla yokk leeram euh, maître Keba Mbaye démissionné yàlla na yàlla yokk leeram Euh, nit ñi ak grandeur am yi taramba jàmm rek am si réew mi ba ñu àgg 2000 Sénégal doo ko vivre la première alternance politique président Abdoulaye Wade jël réew mi si loxo Abdou Diouf si loolu la ñu liggéey ba 2012 ñu am deuxième alternance le président Macky Sall jël réew mi si loxo Abdoulaye Wade si loolu la ñu liggéey ba àgg si fii jëm élection président yoo xam ne ngeen président Macky Sall donte amoon na droit nekk candidat mu ne bàyyi naa ko pour jàmm réew mi mais ba élection yi jot ñi génnee ab candidat ndax PDS du parti bu ndaw force bi am nañ nag ku nekk am nga droit eh, ñii am nañ mille ñii am nañ junni ñii ay cent mille ngay wax mais PDS ak trajectoire am de vingt six ans d'opposition mu créé première alternance te réew mi fukki at ak ñaar képp ku yaakaar ne parti bu ndaw la da ngay nax sa bopp donc c'est une force vive de la nation boo xam ne nii war nañ bàyyi xel également candidature candidature boobu nag bu fekkee dañ jàpp ne dañ ko génnee si anam boo xam dañuy dañ double nationalité bi leerul wala amul benn amul nationalité rek bu Sénégal mais yaakaar nañu am na beneen mais si biir ñaar fukk yi ñi gis ñoo xam ni njort nañu ne am na ñaari nationalité ba kenn ki woon nañu ko si yoon mooy wane ne problème am na comme institution boobu aussi am na soupçon soupçon la mooy ñu yaakaar ne am na ñu nu influencé wala am na ñu nu ñu nu guerre muy institution bu am solo muy conseil constitutionnel kon loolu war nañ ko leeral loolu moo indi la pertinence de la de la demande demande bi nga xam ne nii waa Padogo Sénégal ñoo ko def ñu député yi pour ñu ubbi leeral léegi bu ñu ubbee leeral boobu ëllëg def élection yi ci gagné am ñaari nationalité ñaari nationalité bu Sénégal ak beneen ni ñu koy def dañ koy dax ki ñu bàyyi si biti bu fekkee waroon na bokk dañ ko tooñ génne ko est-ce que loolu dana jaadu yooyu moo tax bi président xamee ne institution constitutionnelle dafa am solo si réew assemblée nationale moo yor baatu réew mi léeg-léeg ma dégg ñu ñaan population yi population yi mais population yi seen baat dañu ko dénkaane député fa nekk kenn wu leen ñoo fa yóbbu dañu leen population ñoo leen nommé donc ñu ngi teewal foofa le peuple sénégalais tey ñoom bu ñuy waxee pour peuple sénégal la ñuy waxee lépp si ñoom dëggal nañu enquête bi créé nañu commission di wax d'accord nañ si report élection yi ne nañ koy toxal ay quelques weer le temps que leer ñu reprendre positif képp si war a nga bokk si képp yàlla jox nga xam ne yàlla moo la jox ndax yàlla moo ko moom nag ndax yàlla moo ne man maay fal ku ma neex maa koy jiitu si ko ma neex kon nag loolu war nañ ko bàyyi xel nga xam ne Sénégal réew bu mag la war nañ mën a waxtaan ñi bañ a oote taal réew ko taal si réew lañ taal bu ñu yàqalee nit suñu doom ne lañu yàqal kon nag nañ waxtaan ñi ko war a boole waxtaan waxtaan ko mu am waxtaan bu yaatu ñi am règlement yu bees am député yu wóor am ay ay candidat yu woor yoo xam ne war nañ bokk xañun kenn du am ñu bàyyi nag Sénégal yi fal ki leen neex soo ko jël réew mi jiite ko tout en sachant que su ñu amee meilleur président du Sénégal jël ñëpp ndax tey dispositions yi ñu jël suñu dañoo wàññi mburu suñu defar nañu usine su leen napp bi amélioré nañ ko kooku yaakaar naa ne duñu wax rek ki dafa bokk. mais laaj bi mooy est-ce que le 15 boobu ñu wax élection dina am. mais xam nga quand nit ki dafay dañu wóolu rek ñu gëm yàlla xam nga tey membre kii dem si cathédrale bi yaakaar moo ko yóbbu ak ngëm kii dem si jumaa gi jaamu yàlla yaakaar ak ngëm ko yóbbu suñu institution yi fi lañ ko fekk juddu fekk ko fi muy fonctionner normalement kon war nañu gëm li nga xam ni gën moom mooy fonction euh, mooy liñ fi nekk le président Macky Sall du candidat bëggul continuer candidature gis nañ si bi biir réew ñu reporté candidature deux ans trois ans gis nañ Mali gii ñu jege bi jël poids ne deux ans dinaa jeex ñu fomm ko mais fii réew démocratie la président Macky Sall li wéttoor mooy liggéey na fi douze ans bala muy liggéey douze ans nekk na premier ministre quatre ans nekk na des plusieurs fonctions ministérielles mais nekkoon na aussi un euh, cadre sénégalais tout pour au Petrosen donc du moom mooy laxas su pouvoir kon mu nekk candidat kon nekk bu candidat war nañu gëm yàlla ñu ñëpp doylu xam ne incha allah rabi le le en décembre élection la am lu élection amul mu am mois du c'est parce que biir nawet ñu xam ne dafay jafe def octobre novembre c'est l'ouverture donc def def élection yi décembre jàpp naa ne dara nekku si nañu waajaat rek waxtaan ba ñëpp ñu si war a bokk bokk si buñ si aggee incha allah rek ñu def élection yi ku yàlla jox nga jël réew mi ko. am na ñu si bokkul ci seen camp te ñoom tekk nañ seen nomba tànk lan moo ci sa réaction. xam nga nomba tànk moom ñaar la. di nga xam ne da ngaa bokk si parti parti bi investir la pour ñu fal la. ak bi nga xam ndigal ki ñu fal ñu président la République constitution da ko jox ay pouvoir mu dénkaane ay cër ñu ko dénk nag ci confiance lañ leen ko dénk ak wóolute mais newul appel à candidature boo xam ne dañu ko ubbi mais kat dañuy fal directeur général nangam ku bëgg nag candidat déposer candidature ñu xool le maire profil fii dafa am rem remplir profil bi soo remplir profil ba pare maintenant nga am la confiance yi nga xam ne ni gën moom moo fal muy président la donc boo falee ay nit jox ay responsabilité si réew mi te sax ñooñu di biir la jiitu jiitu woon na yeneen responsable yu si biir réew bu ñu demee ba léegi ñu ne dañu ko delloo je crois que il faut que prendre acte mais boo àndee nit mu wóolu la bàyyi sa morom dénk la responsabilité bu ngeen demee ba jamono ji muy jamono ji métti si réew mi te réew mi ñëpp bokk ko war nañu mën a contribuer ñu ñëpp lu koy defar te moytu lu koy ñagasal ñaan yàlla rek Sénégal jàmm am fi le président la République constitutionnellement moo am pouvoir nomination mu am pouvoir di nit nit am na droit sañ-sañ ndax liberté si démocratie la nekk ñu dénk la dara nga dem ba jamono situation bi neexu la nga démissionné mais tey damay jàpp ne lépp lu ñu war a def rek si réew mi nañ ko def si waxtaan nañ ko def si dialogue te loolu sincère ñu xam ñu ñëpp ñoo bokk réew mi waruñ ko yàq te ki fi war a nekk yàlla bind na ko moom mooy remplacer président Macky Sall mais ñi soor bokk ñëpp war ko jogante dañ leen bàyyi ñu jogante yàlla jox ñu jël. léegi ñaar fukki candidat yi nga xam ne waroon nañ bokk ci jogante bi denaka ñoom euh, def nañ ab collectif ñooñu itam lan moo war a nekk seen soor. waa xam nga ñaar candidat yi tey ku xam ni élection demee parce que yàlla dimbali na ma bi may bokk directoire de campagne président Abdou Diouf c'est en 2000 boobu étudiant la maa ngi jàng jiite woon mouvement des étudiants du parti Euh, bokk na également ci collège des leaders de Macky Sall mooy Macky Macky 2012. élection lu ñu waajal la effectivement ku waroon def élection le 4 am nga loo def ci wàllu dépense am nga loo def ci wàllu logistique am nga loo def ci wàllu support am nga loo def ci wàllu planning am nga loo def ci wàllu location loolu damay ñaan rek que gouvernement bi tenir en compte pour que ñi nga xam ni gën am na lu ñu jot dugal seen dépense ñu xool lu ñuy defee dàmpaay ndax am na si yoo xam ne mais su ko rattrapé xam na tey quand quelqu'un met si sa si sitam élire x candidat le vingt cinq février wala ensemble élisons candidat x si vingt cinq février seet boobu baaxatul ak si boobu baaxatul bâche boobu baaxatul te ña ko am bokk candidat dañ ko dépensé loolu war nañ ko dàmpaay ñaareel bi da lañu invité que ñu xam ne réew tànneef réew lañ bokk ñoom tànneef réew moo tax ñuy dem ba bokk si ñu war dem jogante ñu yaakaar ne am na ku joxul euh, droit am kon ñoom na nañu continuer ubbi dialogue ndax dialogue amul dara solution du am. kon da nga leen di woo ñu wuy si si dialogue bi bu ñu waxtaanee def concertation euh, règle di leer ñu dem si élection ña war a dem si yàlla may ndam ko war a ndam donc maa ngi incité di leen invité au dialogue pour que ñi mën a euh, réew mi ñu mën ko sàmm. institutions yi ñu sàmm ko suldiifee ko waa ji góorgóorlu ba kenn koo xam ni gën la am sa àq ak sa yeleef loolu kenn xañ société civile bi moom dafay woote ab grève générale sàkku na itam ngir ñu arrêté lépp li nga xam ne ay activité la li jëm ci wàllum koom euh, ñoom ci àdduna wërngal ci réew mi yëpp est-ce que jàpp nga ni idée boobu idée bu baax la xam nga tey boo xoolee réew Sénégal ni mu doxee di réew moo xam ne ni dañuy yem suñu yokkute ñu ngi développement mais foofu am na koo xamante ne day xëy jaay jën si je exemple des Abarouk ba dëkk quatre pour cent la ñu xëy jaay jën marché la ñu jaay ñu joxe dépense seen kër génne seen jëlu kër kenn ki xëy nag jaay fëgg jaay wàccaale kenn ki dem dem marché hebdomadaire jaay ganaaram jaay bëyam ba ñeeku ga xëy ne nañu arrêté jaay moom kan doon jox dépense kan doon jox lu ñu Sénégal bëri na ñoo xam ni que dañuy xëy dund dañuy xëy liggéey xëy joxe dépense boo leen xañee benn fan yaa ngi lor ay xale yi war xëy jàngi du jàngi yaa ngi loor ñu war la añ du ñu añ yaa ngi wor ordonnance bu ñu war la jënd di ko mën a jënd ndax loolu kon nit ki bu ñu ootee désobéissance économique war na xool la situation la sociologiquement de notre pays naka la tuddee ak base bi lan la ak loolu lan lay indi si loraange si doomu aadama yi. kon loolu solution kon ñaar civil ñu xoolaat ko. te ñu ñëw ñuy waxtaan doon ñu waxtaan ak président Macky Sall ñu waxtaan ak force politique yi fii di civil dafa am solo euh, si réew ndax bokk naa man le principe de la partie citoyenne dirigé naa j'étais le président de l' ensemble territorial de la partie citoyenne mooy ñu fexe ba lépp lu ñu def si gox-goxaat yi que la société civile ak les acteurs économiques ñu impliqué leen si biir ndax loolu source de transparence la waaye nag bu ñu population yi situation boo xam ne ay loraange lay indi donc maa leen di ñaan ñuy retirer cet appel boobu tey ñëw si table concertation bi la ñu xalaat ñu wax ko publiquement wax ko devant les autorités compétentes ñu saafara si loolu ba ñu mën a dem vers des élections transparentes et claires gis naa sax ñu bokk ñu réew di wax suñu biir réew mais ñu amul lu ñu wax parce que gis naa yëmbal saa benn sénateur wax na fële ñu béykat benn député na Sénégal mais loolu na c' est c' est pas ça ne engage pas les États-Unis ça n' engage engage wul perte gis nañ situation yu gën a métti àdduna bi am ñu ko taxaw taxawuñ Gaza gis na nit ñi dafa dee suba ngoon ñuy bloqué corridor bi xam nañ ñeneen leen jàppale donc bu ñu dugg si débat boobu ñun dañu am suñu fierté réew ñu kenn Sénégal réew baax la ay nit yu baax ñoo fi dëkk ay kilifa yu màgg màgg màgg ñoo fi dëkk ana Évêque Sarr eh, Maodo Malick Sy am Amadou Bamba Limamou Laye El Hadji Cheikh Ibrahima Niass Laye Ibrahima Niass Laye Ablaye donc nous avons de grands hommes Senghor a été un des premiers académiciens euh, au niveau de la France Abdou bi mu jógee la partie de la francophonie Maître am Wade était quelqu'un de a beaucoup fait dans ce pays là donte lu ñu bëgg rek jëm si élection kon nañu bàyyi xel que ñun amul ñu rey feneen suñu mag ñi baax nañu suñu kilifa yi ñu baax lañu bu ñu turaange ci lañ ko waaye di wax na sa Amérique di wax na sa France ça nous a kooku yëguñu yaram ñu ngi déglu ñu nekk mooy suñu ñu yilif ñu ngi suñ suñu jalbaat waaye ñu nekk suñu kilifa pour que ñu waxtaanee suñu réew ndax suñu réew ñun de coow mooy defar kenn ñu defaral ki xam bu si biti du ko defar. ki yàq si biir du ko defar ki wax xeex leen du ko defar kon nag ñun buñ fi yàq loo xam ñoo ko defar na dañuy waxtaan ba si kanam peuple sénégalais bi def ko témoin ba li ñu jàpp ne dañ ko def le quinze décembre bu le 15 jotee ñu def ko képp ku si am droit ñu jox la ko képp koo xam ne amoo droit yi ñu xam ne amoo droit ñu génn la mu leer si bopp sénégalais yi leer si xelu sénégalais yëpp loolu laa amoon daal la may wax si point désobéissance économique bi nga xam ne gën ñuy wax bu ñu liggéey ni boo bu liggéey da ngay seet naka lay dundee ak euh, pourquoi nga koy wax bul dem liggéey. Baba Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ni nga nangoo tont si sunuy laaj. jërëjëf maa leen di gërëm bu baax parce xam naa rajo bi ngeen nekk mi organe de fonction générale muy rajo beeg muy journal bi wala ñu gërëm den wax ne je me sens très ngeen invité ma seen rajo pour jël sama point de vue. maa leen gërëm bu baax di leen sant baax a baax. di fàttali ni yow yaay président conseil de surveillance agence nationale construction bâtiment édifice public responsable nga itam Benno Bokk Yaakaar bokk alliance pour la république. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup.